dañoo nekk wax sànq balaa may door nii dafa am koo jigéen ju baax joo xam ni moo ma yar def li nga xam ni def ci man li nga xam ni moom laa doon tey te mu dëddunu ci weer yi weesu di ko ñaanal yàlla fu mu ne gënal ko fu mu jóge mooy sam ki nga xam ni moo baye ci aduna bi di sama ndey Salimata Fall nekkoon fele si rosa senegal, mais ma bëgg a aussi sama famille surtout sama soxna nga xamé dafa baye liggéeyam baye lepp and ak man ci all bi fune mu dugg fa du jooytu xif du mat mo nani mom moom marocain la xamul lolu du ko def mais da ko def ñëw tok motax makoy ma sargal te lolu dafa am importance et moi je suis persuadé qu'une société où les femmes ne sont pas aux responsabilités ne partagent pas les responsabilités avec les hommes c'est une société qui regresse. Mais remercier tamit mes militants mais aussi les ñi nga ont yokuma ci ñom tam ci seen xalaat ñu bokk ci coalition Amartune 2024 tax ba nga xam fepp fépp fu ñu dem ci Sénégal ñu mën ñu recevoir ñu ñëw ñu recevoir yi ñi ñu recevoir ñëpp nak ñu leen di gërëm tamit ndax parfois dem nañ fo xam ne nit ñi dañuy xaar ba minuit dogu ñu recevoir ngoyaan yeeg yëpp dañuy toog di xaar ba ay minuit wallaay donc ñooñu kenn mënu leen fay da leen remercier te loolu ñëpp Sénégal rek moo leen ñor di remercier nag Parti démocratique sénégalais

di remercier nag sunu ministre sama doyen la walaay commencé sama nijaay la sama papa la Kalidou Diallo ndax lii nii tey bu amee yàlla ak moom la ndax moo ko dox di ma wax di ma jàpp bu dégg bëccëg di ma invité naan ma ñëwal añ si ñëwal reer si kaa ñu waxtaan kaa ñu daje fële ba jàpp sama loxo indi ma fii ci pedes ba ñu waxtaan ak ñu baax ñii fi nekk ma leen di gërëm ba lii sotti tey di gërëm tamit monsieur le ministre Sada Ndiaye ndax bokk na si ñi nga xam ne ñoo ma xelal tamit taxaw ndax ndaw yenn saa yi dana toog dana taxaw mais mag mi toog dina gis loo xam ni moom mi taxaw du ko gis kon ñooñu dal ne di gërëm rek di remercier nag Karim Meïssa Wade mi nga xam ni bi waxe ak mom dafa dal degluma ma ànd ak yar mënoon na wax ni ki maa magge ñaar wala ñetti at non dafa tok di deglu 45 minutes ñuy waxtat mak mom, mais waxul lenn lu jëm ci boppam senegal rek ko ñom lepp lu mu wax senegal la ko donc lolu dafa nek lo xamni lu am solo la. te nag mën naa wax ni Karim doomu Sénégal la doomu Sénégal nag boo xam ni xeebuñu ko adduna bi xeebuñu ko ndax fu mu ne ñoo ngi koy naw mu ngi fay liggéey liggéey bu mucc ayib man mii def formation bancaire xam naa li muy liggéey ko ndax bu demee ba ay réew yoo xam ne du ko dénk ay fonds yoo xam ni àdduna bi yëpp dañ leen koy ñee waaye ñun Sénégal ni woon naa nekkoon naa fi jàngalekat ndax maag Kalidou mii moom moo ubbi école normal bu Ndar ñun ñu suñu promotion ñoo ko tëj su formation wu ñeenti at ya moom la doon wax léegi fële sa Ndar dëkku Mayoro ma lay remercier au passage Mayoro vraiment pour la générosité ginnaaw loolu dem naa tugal notamment France jàngi yokk sama xam-xam yokk sama expérience liggéey naa fa ànd naa fa milité naa fa politiquement ànd naa fa ak ay association jàppale leen liggéey naa ak ay chef d'état ku mel ni ki François Hollande Maroc Gueye liggéey naa fa ak seen premier ministre actuel ñu ngi ko Aziz Akhnouch kon Palestine dëkku guerre liggéey nañ fa ay liggéey yu am solo yooyu moo su ma doon lim réew yi nga xam ni dem nañu fa tey ci àdduna bi kon fii la ñuy fanaan mais alhamdulilah rabil alamin loolu yëpp nag boo gisee mu am yàlla ak Sénégal la ndax fii la commencé fii la soqeekoo su ñu amuloon formation de base fii bu dëgër bu ñu demee fee ñu fa tekki dara kon di gërëm Sénégal war a de loolu njukkal Sénégal loolu moo tax ñu dellu si waat nag fii si Sénégal fas yéene lii fi ne ñu jëlee ko fi ànd ak Karim damay wax rek nii bi ma Karim tàllalee loxo amoon naa ñaari choix mënoon naa ni man sama parrainage mat na trent million tëwuma ma déposé sama candidature dem waaye nag réew mi dafa toll foo xam ni égoïsme li ñuy wax égoïsme xalaat sa bopp kese demalul réew mi taxul réew mi dox bu doon loolu rek la damay toog France ga ma nekkoon jàpp sama liggéey di liggéey di tedd di jàpp sama njàmbur waaye nag su ma ñëwee Sénégal dinaa rus ndax bu ma ñëwee Sénégal gis li fi ne te mu wóor ni man war naa ci mën a participer pour changer donne bi te defuma ko bu boobaa nag dinaa rus. mais lii mi leen di wax nag Karim Meïssa Wade la gën a ñor fi mu ne. du nelaw kay wax di xalaat Sénégal guddeeg bëccëg solution bu fi am lu fi am dana ñëw taxaw Covid bi ñëpp gis nañ taxawaayam fii ci Sénégal kon kooku neex na àndal moo tax bi suñu xalaat méngoo ci li nga xam ni moom la bëgg a doxal fii Sénégal bu ma tàllee loxo loxo boobu dama koy jël ndax Sénégal rek moo nu ñor. beneen bi si des mooy que ni loolu ñun buñ ko bëggee doxal ñoo ngi tàllal suñu loxo bépp sénégalaise ak benn bépp sénégalais képp kuy patriote nga nekk Sénégal wala nga nekk si diaspora bi moo xam ngay def politique wala ngay commerçant wala ngay agriculteur wala ngay pêcheur wala ngay mécanicien wala ngay tailleur quelque que fi nga ne xam nañ ni sa xam-xam sa xalaat mën na doxal réew mi ñoo ngi lay woo nga ñëw bokk ci ko coalition Karim 2024 jàppale ñu ba ñu soppi Sénégal ndax Sénégal yàqu na lu tax mu yàqu réew moo xam ni weer bu ne dañuy lepp kuy fay suñu fonctionnaire suñu bor kenn xamatul lu mu toll. 16000 yenn saa yi ñii nii 16000 ñii nii nangam la ñii nii nangam la waaye xool leen rek. bu nu jëloon tey 16000 milliards nee na detu état la mais nañ ci boole société yi nga xam ni ñoom ay société anonyme la ñu ñi ay SARL la ñu te di leb seen bor boru état la ndax c'était lu ñuy wax moom la dee dettes souveraines bu ko boole woon ci bot detu état bi kon dañu weesu fii lépp yàgg loolu moom a tiital man loolu moom a tiital parce que kenn mënul développer réew ci loolu kon war nañu su ñu amee koo xam ni am na xam-xam amna khalat, xalaat expertise boo xam ni xam na fu ñu alal Sénégal développer fi ay projet créer fi ay emploi pour suñu jeunes développer suñu agriculture suñu pêche te ñu bokk xalaat indi wér-gu-yaram fii ci réew mi waay waay lu tax duñ ko jàppale kon remercier ci jotaay bi di remercier sama militant yi nga xamni ñom jog nañ fu sore ak sama partenaire yi di remercier wa walo Abdourahmane Aw nga joge ba Rosso senegal di remercier Ahmed bam nga joge ba Ronk Hasinatou mi nga joge ba kedugu bari nag suñu nek du xam naa su mu leen limee du remercier nag wa Dakar ci sen taxaway surtout Awa Konté ndax Awa Konté mo bu ko mu ni man du ma ñëw ci koo xam ne mu ngi doog a commencé politique Marième Faye Sall moo ko yóbbu daaw màkk mais fii la taxaw parcelle dajale ay parrainage ay mbootaayam ay jigéenam ñëw ni man yow mi yaa ma doy indi ko kon kooku dañ koy gërëm par ce biais may gërëm nag suñu jigéen nekk fi tey moo tax gisu leen que Aram Diop ndax jigéen la boo xam ni moo mën góor bu nekul won français yi di ngeen xam ni mom moom mu ngi fi ndax koku euh vraiment famille maturin la té mang kay doxé fi ci biir Dakar ci biir léegu gui ba nga xam ne taxaw na taxaway bo xam ne fii wax deug yalla Dakar fep fu mu fi dem quartier quartier dum mu fa sëgg kon koku dañ koy gëreum tamit voilà di len remercier yéen ñëpp nag tubaarkalla macha allah di jéggulu tamit ci waxtu bi Je remercie remercier presse et le journalistes parce que lu am solo la ndax dafa am solo suis campagne dam daan wax ni man en Je suis en jour bu